ye ken oso dalen la men kerewa 20 by 20 Jobeje, je kuranga beje nin sun karo bu nyana la horomo iba wafila 200000 dollars cash ika fu min fane mortgage ka domo ni domon ni jo kata fu kari woro ibo wafila 250000 dollars Cairo Properties and Investment Limited, Ibal Content Sun Cairo. Cairo Properties, link us and we meet.

bari neen waaye di dunda booga dama koy wax ñi ngay bëggee teg stress fële happy happy laa wax de bi te excel mané fa ko yexel yow ki kan mo ko ñawal ki kan mo ko ñawal lay lay yow sa gere face amul matt amul ah han kay barki ñëw yonent bi déedéet kay bi ta wax na ko la ñawal Thank you. Thank you. luñ sax xamoon na ne nama nga yu mel nii. waaw <laughs> ñu la rek askan bi wax ñu yow yaay kan ak fan nga jógee. maa ngi am originally maa ngi jógee Farafenni waaye Brikama laa yaroo waaw. <laughs> yow ban dëkk nga jógee jamono ji fan nga jógee ñoo ko liggéey. maa ngi mm-hmm. waaw am naa fi 19 years. Mm-hmm. waaye dama dee ñëw every year dama dee ñëw ñaar ñetti yoon si at bi. business, my family had business because my family is in feet, my harit yang feet. So Gambia for that. Nak nga gisee Julie tey bi maanaam bi ngeen mën a gis ci nga jóge ñoo ko liggéey. maa ngi dëkk Dame. Very nice because almost, why am I said almost 18 years musuma tombé fii nii. Tobaski bi dama dee ñëw diggante bi balaa Tobaski ma teelu o after Tobaski ma ñëw. so soltu baski bidar i'm very happy nen na torop jigéen yi sant nañ xale yi sant kontan mag yi kontaan nañ am nañ seen hari ba iya, baski iya, iya. so i'm very happy te yow kan loo rey saxar ku rey saxar ku rey saxar ah mu nga ba jaabani waaw tuda laka Alex. Eh. Wow. jamono ji loolu neex a dégg ba bëgg ma bëggoon a xam rek euh, naka la sa mel di si ceeb biir Gambia. ah julli bi neex waaw lekk naa si benn ci lii lekk naa si cere yi neex na torop. kan moo toogal benn ci lii ah. suma booba ba pare dem naa si suma <laughs> xarit tamit so kontaan naa ko kontaan nga Binta ñu gis sa sanse cameraman jëlal ma lii rek si sanse Binta ñu xool ko nga wax ñu bii moo di ñuy tudda Mohamed ñu dëkk fii si Rokuda na ko nag ndax bu rafet na trop. rafet ah, te yow daal gis naa ne sa piis doy na. <laughs> ah mu ngi watatu loolu la man nii laa ko buggee dama bëgg a kuy def ba mu watatu. jërëjëf piis bu doyee def loolu. jërëjëf te yow loolu naa. namu ma dara. <laughs> namu dara. namu loo dara. Ah, bi gis nañ ne julli Gambia daf dee ne naka la julli Gambia soo ko waree comparer ci julli ah, fi nga xam ne nag mooy Germany. julli um, jaama ni moom first thing ñun luñ dee njëkka def mooy dañ dee dugal suñ nit ñi nekk fii ñu gën a am everything luñ soxla so ñun moom nañ toogal suñu benn léegi-léegi dañ dee tase si benn groupe nii ba dañu dem si kenn kooku toogal ñu dem ñu solu jos mun a solu rek xëj na ay Snapchat yee la daalu <laughs> waaye Tabaski Gambia is the best mooy real one bi ba pare waaw mooy bu luñ xam. waaw salibo yi everything fii la am. te sa mees baax la. jërëjëf. bii foo ko jëlee ak nu mu tudda. mees bi de dama ko santaane soo ku ma ko jëloon ñu tudda ñu Binta ma dégg ne jamono ji jànq yi ku sant yaa ko santal ma bugg a xam rek yow naka la sa boutique tudda ak ku bugg a dem si boutique bi rek fan la mooy jaar. waaw suma boutique yi mu dara Miss Designer Outlet. ñu ngi si Kololi highway bi fii nii si boori Juma Gadafi bi am na essentiel bu fa nekk si kaw foofu noonu. Mhm. so foofu laa am suma bitik bi am naa ko lu nekk. limal ñu ngi dégg waaw si ñëw solo jigéen ñi rafet nañ góor yi rafet nañ waaye bëgg naa daal ñu ñu ñëw si mbar mi sant. maanaam yow joomal xale yu góor ñi. waaw waaw joomal jànq yi. ku bëgg rek ñëw si yow. amna ay sampo, amna ay design na perfume, amna design na belt, bire, quality t-shirts, quality jeans, at from dress, at suits, at blazer. Okay. Lumeka mo pa. Lan mo na-inspire ba nabigay si Fasol Industry? Ah, uh, Fasol business dahil naman like business because naman din business since na ma amon ko sa So... kontaan neen ma ne ko euh, jamono ji nga xam ne yaa ngi ñëw Gambia naka nga gisee Gambia euh, and kañ nga gëj ñëw Gambia comme yaa ngi wax every year nga ñëw waaye this year ndax nga ñëwoon foofu wala bi mooy sa first time bi nga ñëw this year. non this year ñëw naa bi mooy suma ñetteel bi maa ngi ko jógee si weeru koor bi waaw dama dee dem ma jënd bagage ma indi ma ceeb tamit suma suma jaaykat yi teg suma business bi because ñaari bitik laa am am naa benn mu si Gambia. so loolu moo tax dama di nekk di jaabante rek so gisuma Gambia daal. naka business maa mu ngee dox. yàlla mu ngee dox <laughs> so yow loo lekkee sa benn cin bi ab loxo ab kuddu <laughs> ah wax ñu ñu dégg parce que xam naa di bopp naa yi mun lekka. kuddu laa jël nga jël. kuddu laa déedéet damul. Eh, ah ma laajte gars yi. ah waaw laajte gars yi. damul ah kon nag nii rek la moo demee si ko defee rek xam naa ne Aïda dina def doxantu bu ndaw. ah dégg naa ay semestre tamit ñu ngi si biir place bi laajte ma gars yi ñoom fi ñu jógee li ñu def fet na ak lan moo tax ñu ñëw fi Aïda defal sa doxantu rek. waaw loolu dina la neex waaye doxantu bi bala ma koo door bëgg naa dégg nga yóbbu ma maama Gassama. moom li nga xam ne mooy borom dollar bi bu ñu demee si moom dafa jël dollar sorti ñu bañ doyal. maama nag laa nar a jàkkaarloo yóbbu leen baal ma ki la ñëwal man nag suma mag moo fi jaar xam na suuf bi kan ak kan ngay wis xam nga bés maa ngi wis suma xarit yi suma mbokk yi ñëpp ak suma doom maa ngi wis Gambian Talents ak yi ñëw na express abroad like I think nothing like home, especially to Street la ñu toog si sa boori famille rek dara daal ak foog naa ne bii mooy the best time my time yi Touba Street My mooy the best time di nga la ñu December waaye kon nga foog ne time bi mooy the best time to ñëpp ñëw parce que time bi nga dee mën a toog uh, a famille family. a waxtaan a famille a gis nit a am ñaari occasion yi ne muy Tabaski ak Korité lu baax la pour nit war a ñaari ñaari occasion yi yow ban nga si gën a taamu. Tabaski Tabaski. moom la yaa fay nekk. parce que Tabaski la mos a di famille ñoom ñëpp si lañ di ñëw. time laa di am ko tam. Mhm. waaw laa di gën a am ko liggéey. maa reyal leen na xam.

ba pare comme li ma wax si affaire business ak yooyu noonu ñaar dañ boo ko aar ak yooyu noonu waaye mooy koo xam ne duy nëbbu dara si business am tam fu am lu baax wala mu dégg lu baax dina la contact ne la ah su su fekkoon ne man dama foog ne ñun ñu nekkee si la ñu la def ñu wante because at the end of the day ñun ñëpp dañoo ñibbi si suñu dëkk moom ñëw na ubbi si business mu wa like man tam di seen keneen ak keneen di seen yoo xam ne li mu mel nii is very good ñu ngi caatante di leen wax yéen a jërëjëf jërë ngeen jëf <laughs> kontaan nañ ci bis bi. ñoo dina kontaan. yóbbu leen ma maman jërëjëf. mu bees a bees mu bees a bees. mu bees a bees mu bees a bees. jox soo Mama, maama dañuy kontaan gars yi ñu ne ànd bu yàgg bi dëgg la waaye gis neen maama taxawaayam sa Gambian Talent promotion si Talent TV I'm um, la ñu ne nit ki uh, soo gisee lu baax danga koy wax waaye mama ku ñàkk ki ñaan la mënoon naa ñëw si dëkk bi tey duñu ko wax waaye saay bu ne maama mu ngi si biir dëkk bi mu ne ñu cib nag yaama buy kontaan nañ si yow bu boobaa nag i dora America. ah def dama demal ak mag Fatou Waly Mă febare să-mi dă să le dă pe anul, uite, mă bine, vine, mă contați, mă, De yal na yàlla xeeb doole Sali kon nag yow it kontaan nañ di demalal mag Sali Sali ka salbe Sali Sali Sali Sali Sali Sali Sali Sali Yes, sir. gis nañ ne dangeen bàyyi ko ci salon bi dangeen ko vidéo ni ngeen a wax ngeen ne tamit smile ba teel a pare nit ku ñeme ñu rek moo lay daal pare si biir wax ma ne woon xam nga ko bàyyi ko teel a pare bi soo dee teel a pare gis ne ku maam di teel a pare moom da koo def dara sax mu baal rek tuuba am tuuba ak yéen suy dakkaay fàllu ma xamante moom nag ma xamante moom yaata na yaatu ñu toll ci foo yées waaye bu ma ko xamee ba léegi suñu wéy Gambia man ak moom la ñuy do things together ñuy def things together ñooy ànd ñooy dem ñooy dikka ba bu mis bi complexe bi bu ko ubbi fii ci kóolóoli man ak moom moo si nekk ubbi bitik bii dem décoration yi jënd bagage yi maa idea xeebu kenn te xeebu i xaritam su mu la téyee mu dee bàyyi fii moom daal soo paree bàyyi sax moom du bàyyi moom mu leen la mel daf dee dem jeex si xaritam di ko ñaanal rek lu moo sabab parce que Europe ñëpp xam ne dafa ñëw Europe neexul nga dem di liggéey ko liggéey comme nag ñu ngi ko gis nii su ko gis nii with all the diva with a nice hair and everything she work hard for her money du góor moo ko ko jox du whatever she earn it on her own moo ko kenn moo ko jox she is a hard working lady she is independent she is soft hearted she is down to earth bu dee wane wut mun am tase moom nii nga she is nobody xëy na she's everything moom noonu leen la mel fu mu mën a dimbalee nit daf laa dimbale si sutura ak si talaata so maa ngi ko ñaanal business am bi yàlla ko koy ñaanal aagaleel fu mu fu mu koo bëgg a aagal yàlla ko uppa mu toog ba doomam bu góor bu mu am bi Hakim yàlla na toog bay takka jabar di gradué mu toog fu mu bëgg a aagal mu aagal ma parce que nit bi ku baax te nit ku baax moom lu baax rek laay am di ko ñaanal nag nit ñëpp ñëpp yëpp yàlla na ko yàlla indil jëkkër bu baax ku gën ci moom kuku yërëm kuy xam it takes a very real man to handle her because you need to nañ ne góori Gambia bëgguñ jigéen buy traay jigéen suy traay ñu most of ma wax some of the Gambian men that's the way they are so it's take a very strong man to understand her mobile communication. ko mm. so you na ko yàlla may góor bu baax a baax a baax you ko yërëm bugg a biñ ko daal bàyyee naa ko yàlla ñu bëri la la dee jàppale ñu bëri la la dee neexal koo ci guddi foo ko soxlee you call her she will pick up the phone and talk with you the same thing goes with me ma toll fu ma soxlee I pick up the phone and talk with her ku baax la ku am yar la daal dafa mag ma fase ñu nekk xarit xaw ma nag fu mu yar la waaye xam naa ne yar nañ parce que nit kuy yar rek moom mooy dem maa remember around last year maa ngi <laughs> remember benn politique they travel together ñu dem Bissau for a holiday trip bu them enjoy so si biir enjoyment boobu nag ñu dem si ay village yoo xam ne we don't know that kind of a life you know I still used to look at the video and laugh ba gis ñu lay tëddee si seen lifin yi seen lali taar taara yooyu nag tëdda nag xam nga bàyyeen defu yaramam bi laay nothing happen you know she's so nice she's so humble and all that ko ne nu ko bokk ko doomi aadama bi te loo fekk si moom nga bàyyi ko fa yow la nii te yow am ko fa mu kii nii ak nii parce que maa ngi ko gërëm di ko ko ne na téere fu mu téye bu mu téye bu Buko can change, Buko can stand let her be who she is because she is just perfect the way she is and I love her so much and I will always love her. I said to Sana when you I said to

Hey! waaw loolu neex na ba noppi ah, bu boobaa rek dinaa dal dégg si suñu sista ah, di ko laaj rek mu wax ñu lan la ñu mën a wax si ki nga xam ne mooy Binta. waaw waaye taaya rek. waaleykum salaam. Uh, Juliet, all the way from Stockholm, Vintanas, was again Hamanteun. Why, um, through Mama, la Hamante Binta, the short period, Luma Mugitse daal, tey na, baax na, ñëw na, xam kiram bi. moom mënu ma xool. jamono ji yaa ngi live xam naa ne waasta comme ñu ngi seetaan looy wax man na naa suma am di jaamay suma friends yi nama naa leen ma niyu di leen ziyaar tabaski bi gis nga maa ngi naa xam naa sax dinañ tiit ma gisee fii nii waaye dinañ wish um, uh, happy tabaski ma mënuloo wax kan ko special <laughs> ngay wis wax kan ko special Mr. Somebody uh-huh. gis na no name eh, eh. xam na boppam eh, maa la nopp demoo <laughs> sori si yow rek waaw waaw yow <laughs> jonge nga man lii lay wër jigéen ji jonge ah, jigéen da ngay jonge yow foo ko def foo ko def lum la ñaar bu baax na ñi nga liggéeyal tamit ah, dinañ ko wax ah, su ko defee rek dinaa toxantu nii rek ah, dem laajte ki nga xam ne nag moom mooy manager li nga xam ne nag mooy suñu bitik bi kon nag borom ñu laay kaaba ji nuyu naa la. salaamaaleykum maa leen di nuyu. introduce ma sa bopp wax yaay kan. man maay um, anyway, Binta is my friend and my boss, I can say. I'm on Maneka Delegation Shama Buneka, which is in Kalabima. Mafaneka, Maneja, Maneka, ICP, Maneka. Anyway, um, Sally, what now? Everything about Binta. I cannot go back. Binta Blumwa like Binta amul morom Binta Binta like su ma bëggee wax uh, Binta nu merek. you gonna spend like five hours here all because so so <laughs> but anyway um gàttal ko I'm so happy and I'm so proud of her because um as Sally said um she's a very hard working woman and mashallah daal anyway Binta Binta Binta amul lu ma wax but mm. Binta is the best like xam nga um, ku baax la इनको पगली कोची जोरो Oh, xanaa uh, bu boobaa rek Binta ñu la tala uh, boutique bi nu mu tudda um, boutique baa ngi tudda Miss B designer outlet Miss B waaw Binta nga ko tuddee waaw Binta laa ko tuddee waaye dama gis ne daal xam nga foog nga create name daal because tuddee boutique Binta ak yooyu noonu is not it's not nice daal loolu moo tax ma gis def ko right now. Where your Miss B? Miss B. Go for the medal nice. Miss Miss B. Go for the medal nice. Go nice. nice. nice.

waaw dama bëgg a dama bëgg a gërëm maama maama Gassama moo ko bëgg a gërëm am soo happy si nga xamante moom dañoo wax dañoo jokkoo dinañ nekk si téléphone bi di change ideas so maa ngi ko ñaanal moom tam business am bi Amérique mu dem si kanam yàlla na ko yàlla fay xolam bi bu baax la am soo happy yow tam Mariama thank you so much appreciate naa li nga ñëw fii ak seen naay saay. ay bëgg daa waaw ba pare a dem Efoale. Efoale moom suma bitik bi xam ma man nekkuma fi. Efoale moom laa nekkuma fi te xam yaa ngi fi am business yaa ngi fa spend xaalis bu bëri nga jël teg si loxo nit ñu la dimbale ñu la ko manager is not easy so she's very honest I appreciate it dénk naa ko suma bitik. kontaan naa moom ak Aïssatou Aïssatou tamit bi mu foofu noonu boutique bi lu soo tuut customers yaa ngi ñëw ñu ngi daal am very happy bi ma ñëwee dama kontaan trop si ñoom maa ngi leen a gërëm maa ngi bëgg a gërëm maa ngi gërëm suma ñoom yaay suma ñoom sista ku nekka maa ngi gërëm Pa wax ak moom so he was also making it possible Mama Mama. So I'm very happy can meet Samba. Thank you, Accepted Budapest. I'm very happy. I'm proud of the Gambian people. Yenangete Puba, TV is, is, is good. Yenangete try to accent the game. I'm explaining that again, they train me, which really touches my heart because

ñu ngi la wax Binta mu ne ma wax la ñu jërëjëf kontaan na si ñëw bi ngeen ñëw mu ne kontaan na si ñëw bi ngeen ñëw Binta comme li ma waxee rek nit ku baax la Binta xam naa ko close to léegi ten ko xamee ak waaye Binta mooy nit koo xam ne la musuta ci Binta benn ni mu mel nii rek noonu la mel you know moo tax wax bi sax soriwut wax dëgg nit ku baax la nit ku xam teraanga la nit kuy defal nit la te du wax ak yooyu noonu maa ngi gërëm Gambian Talents yéen ñëpp nag yéen nit ñu baax ngeen Paa Ousmane moom li ñu mbala woon bu tey ñëw tey bu baax la kaataama mi toog nii mooy suma kar a gërëm yéen ñëpp seen taxawaay Binta mu ne gërëm na leen mënoon ngeen a ñàkkaa ba ñuy ñëw si bisam bi mënoon ngeen koo romb dem si keneen because mënoon ngeen ne ah dafa am business rek waru waru leen fee ñëw waaye def ngeen bu rafet yéen it ngeen ñëw na leen yàlla defal jàmm mu ne lim lañ la jox nii nag def ko xeet. dafa dawale indi rek ak yooyu. man moo leen jox ten thousand dalasi bi. pour seen déwénam. leen ma ne ko kontaan ngeen ko. kontaan naa Marieta damay xam ngeen ko mu ngi nii ten thousand mu ne ko xeeb ma ne ko waaye ñun xeebul ko lu mu joxee tey jii yal na ko yàlla may lu ko ëppa moom moo xam lu mu bëgg yal na ko ko yàlla defalal ah, yàlla may ko jàmm ju bëree bëree bëri ah, toog ba moom it doomam di ko defal ay teranga yi teranga ñun ñëpp ñu fekkee waaye it kontaan neen definitely ah, because ñi ci bëri neen si dëkk bi dangay koo nit ne ko dama la bëgg a seet si borom di la ne du la uyu sax mbete euh, yi di la jaay comme ni mu koy waxee rek semestre yaa ah bu boobaa rek su ko defee yow it doo taayi doo xaari waaye depuis buñ la koolee ba saa si yàlla tey Binta yaa ngi communicate ah, nii leen ko bëggee ñun Gambian Talents we here to tap nurture and promote various talent te yow it talent bi nga am definitely ah, man dama koy wax kuy dox si sanse ñi ti den lay naw parce que tey fii ko fi sansewul ñu romb la ko sa morom kon yow yaa ngi tax jigéen ñi kenn rombut leen yaa tax jigéen ñi Gambie nice ah, kon nag sa bi nga xam ne muy Miss bi ñu lay ñaanal yeen leen toog muy saawaan baawaan ñu am different different branches biir Gambia ah, kon maama moom moom wax na ko mu ne moom suma sista la waaye dama koy wax rek ñu ne lu yàgg dëgg la ah, kii moo ñu yar moom it mu nekk mag ñu ñàkk ki ñaan mënoon naa nekk mag joo xam ne ñu ne dafa tukki bi tim réew su ñëwee su gisee ay rakkaam ah, mu mel ni comme xamut ñu bu baax mu fekk fi ay rakka ah, waaye it ah, nu ma koy waxee rek ku la soppa rek ma mbete ku la faale moo la soonal waaye maama yow it ku baax nga ñu ne ku baax rek moo mun a xam ku baax ne la ne bàyyi ma wanale la ku baax yow yaa baax moo tax nga wanal loolu lay namali ak mosali mu dañ ak si jëwal. waaw jëwal day fekkee loolu baaxu maam la nan ko yaa baax yaa baax yaa baax yaa ñu dem réew mi déedéet kay yow lu ko laay tegee déet kii lu ma koy tegee mu ne defal na leen reer. di ne bu ma baaxee ba tey Yo mismo. I'm table bi ñu wanal leen taranga man dama koy wax taranga àdduna bët ah, mama ak ay groupe am rawatina nag Binta ah, def na ba mu baax kontaan ne lool waaye ayda ah, di jaajëfal ki nga xam ne nag moo leen sansel di borom ki nga xam ne mooy jàmbang royal gramo jàmbang royal gramo mi nga xam ne toj na fi def na ba mu baax di ko jaajëfal bu baax baax si sa sanse bu rafet bi su ko defee mbay la nga jaajëfal balaa may ñëw waaw ba tey dara ñoo rek eh, dem ne taranga àdduna te teraanga du lu tuuti euh, Fatou Diambang foo ñëw mënti seetaane ñu ngi la wax jaajëf di la jaajëfal bu baax te yéen ñëw seetaan képp ku si bugg a cuub façon xeeti cuub bu nekk rek xoolal la si Loyal Bramo su ko defee ñu indil la ko ba foo nekka euh, moom nag si yu baax ak si sanse rek lay dox day binta si makeup bi day waaw moom di ko fàtte gannaaw moom moo dox si makeup bii nii euh, moom nag ak ak boksam la amee saay boo ko soxlee rek bu gàddu boog sama ñëw taxaw defar la ba nga nice bu saay boo génnee boo dinañ nit ñi dina laajte yow kan moo la make up ah, mu nekk xale boo xam ne dafa ñàkk ki ñaan bu meloon ni man mënoon naa wax ne du ma ñëw make up Aida wala du ma make ah, ba tey rek moom itamit di ko jaajëfal waaye bala maa def dara tamit naa bàyyi jàmbang mi nga xam ne moom itamit tey dafa toj sanse ah, mu wax ni ku ko sansel tam jaajël jaajëfal ko thank you so much <laughs> okay a bari ko babe ko da ba fara ko ani ko yara min jambala Jamban's real grandmother provide Fatu Jambang and Nina Faka Faka like you wanna look beautiful like this, you wanna look beautiful because when I'm looking I am beautiful and I will still be beautiful because Jamban's real grandma add something and I'm looking glamorous. So if you want to look beautiful like this, you just go to Jamban's real grandma about Ilana Bayumyang and Bafra Fanang. I'll continue the mentalist degree for now. We'll bring you more, more and more things that you don't, you, you don't see around me around people that you don't know, people that you know or you don't or you heard of, but most of this guy, and then you know, then you basically basically want to learn how they spend their, uh, their holidays. This is how we do it, and we keep doing it. Keep following Government Talents TV with me, Ibrahim Jamal. boppa la uh, di ki nga xam ne nag moo ñu make up mhm. ay da moo la make up uh, ma koy ooye suma rakki boppa Ah, mu nekk Ndeye Binta def lu rafet waaye di jaajëfal team bi ay da métti na lool ah, ñiti suñ gisee ñu nekk live ñu ngey def li nga xam ne mooy liggéey bi ñeneen dañ dee toog rek foog ne magique la ah, waaye lii the whole month boo xam ne ñu ngee prepare ñu ngey def everything di entire staff ñëpp ñu ngi leen a jaajëfal góor jigéen mag ak ndaw gis nga ne team bi ku mel ni Moussa am na jabar rey xaram rek daw si ñëw toog añu mënoon na koy bañ a def waaye liggéey baa tax mu def ko Euh, suma doomi boppa ji Nguy Njaay euh, di ko jaajëfal bu baax a baax moom mënoon naa wax accountant laa si yëfi accounting laa am li moo lay wanal ne Gambian talents we are here to tap nurture and promote various talent amul foofu noonu rek si wàllum li nga xam ne mooy accounting si xaalis ba ak yooyu noonu waaye mu ngi nii join ñu liit li nga xam ne mooy technical team bi euh, kon nag ñu ne behind every successful family there is people behind it kon nag di ko jaajëfal bu baax a baax ay Aïssatou Diallo mi nga xam ne ah, suma pool bi naka la ko gaa di ko si kër si man rek si pool ah moom it mu nekk ku rafet ku ñàkk ki ñaa di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ki nga xam ne nag mooy Salimatu Bankura ah, moom it ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax ah, si liggéeyam bu rafet waaye tiim bi bari neen Euh, ku lim juum waaye duñ fàtte ki nga xam ne mooy Marine Bouda euh, comme ni ñu koy ooyee rek si njaago bi ñun kër ji ñëpp a fa njaago bi joolaa bi saraxulee bi njaago bu déggul olof ah. bu jàppee sa ci <laughs> eh, lu mu koy wax lu mu koy wax lu mu koy wax da ngeen yàgg ma ne ko neeta ba loppi waaye emut foofu noonu Aida yow di la jaajëfal ah, dama koy wax rek ah, man suma rakki boppa nga ah, da nga bari affaire rek xam nga suma fan bi maanaam bi mooy waaye ku ñàkk ki ñaan nga xale bu bugg a liggéey bi depuis suba ba léegi yaa ngi ñu toppa waaye jàmbang yow it kenn di yow di la jaajëfal bu baax a baax a baax suma xam som gentleman bi nga xam ne moo nekk ci suñu team bi waaw ah it's beautiful ah waaw di jaajëfal ki nga xam ne nag mooy Mariam Cissé Cissé Njarmeew moom nit ku baax la depuis you know di jaajëfal sira mi nga xam ne moom moo di ko Brikama stop by Brikama because doomam bi moom it ah, mooy loolu ah, waaye di ko jaajëfal bu baax a baax ah, the entire team kenn misut you know kenn misut ñëpp jéy na si neen ay dama dama koy wax Gambian Talents daf may dundal soo ma aayee Gambian Talents mooy nga aayee ma sa boppa te foog naa ne kenn du ma bugg a aayee boppam tey nag baat ba dem na waaye foog rek ñu jóg ñu def li nga xam ne mooy liggéey bi jigéen ñi nga xam ne ñoo Europe ñoo nekk Amérique si diaspora bi dañ dee soxla lool soo rombee Amérique soo rombee Angleterre soo rombee neen dëkka soo rombee tubaab bi xoolut la amul sa taay mu ngi waaxu comme mairie tubaab bi nu ko waxee mu ne ma leave me with my newspapers ñooyu noonu leen fa nekkee waaye soo leen ñëwee fii ñun ñoo leen a célébrer télé yi bari neen si Gambia waaye duñ seen gannaaw yaa seen kanam yaa rek si kaw si kanam kontaan lool bég lool ñu ne lii ku ko wax rek comme jeex na ah bu boobaa caméraman nan dem si fi nga xam ne mooy dining bi su ko defee gars yi gis traanga bi ñu ne teranga àdduna bóot ah kon nag ngeen gis teranga bi Binta Adja Mama kaale wala ñu teranga bi ayda waaw. lu ne faa ngi daal kenn du ko jeex. kenn du ko wër kenn du laaj fu ne. Ah, su ko defee nag ñu dem. waaw ah, léegi ñu ah, ngi ne moom mooy daay bi. ala faramaare mu ngi demal loolu. lan la ngay def ak ñun. fu wóor lim gën a kay. adduna la xam. barke Demba su barke Demba Surano fu wóor lim gën a la ci. <laughs> ma yegg si kaw piste ba fecc fa lu rëy toj fa. ah Aida bii dëpp reneen. macha allah. ah ana ah, gaa ah, ah, Europe bi yéen dama ngeen ñii de. fresh fresh food. loo leen si na ma. Mm-hmm. loo leen si Dave. Dave ana nga kay xool li yow mu bëgg lu baax. Aida fii lan ak lan moo fi nekk. best friend mu fi de. best friend mu fi. Mm-hmm. yëpp a ci biir. yëpp a ci lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir waaw ñu bëree ngeen lekk kër yi yëpp a ngi toog a toog yu bëri soo ma ne ah xaaral ma defal sama ki nga fuus rek nga xam ne ki ngeen a liggéey ak ngeen lekk dara naan lu seeda. macha allah lépp macha allah yow daal xam nga gan lu koy gënalee kontaan nañ. ak kon nag gars yi jamono jii nag doo gis li ñuy lekk xool ngeen ko seen ngeen ko foofu la ñuy em ak yéen dem leen tëddi nelaw ba ëllëg ñu indo jàmma fanaan jàmma dégg jàmma gis jàmma ak waxal gars yi ewo benn benn waaw yal nañ ko fekkee suba incha allah bye bye bye bye taalal bi nen laas pool ba pare doog a lekk ah, rek ñu dem Naxumata Dagan. kaay leen kaay leen naka la. xoolal booy. kaay leen kaay leen Naxumata Dagan. tey kaay leen kaay leen. waaw nañ dem bu yàgg nañ dem bu yàgg. Naxumata Dagan. am na suñu yombal. kaa su leen nii. na ngeen fiy demal. kan la yombal ba mu sax. na ngeen ñu yombal ba mu neex. na ngeen ñu yombal ba mu sax. yàlla attaqué. lombali suñu dem. lombali tamit. call foo leen nekk naka ngeen ay demee ak yooyu noonu ñu koy jaajëfal yëpp bu baax baax a baax yeneen staff yi nga xam ne mënuñ ta ñëw ñoom ñëpp ñu ngi leen naa wax ne ah, ñoom it gis neen seen taxawaay ku nekk ak liggéeyam kontaan leen lool ah, kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a bàyyi seen soxla di bis suba di ñu seetaan yéen nag yéen a tax ñuy def lii parce que xam naa ne ñu mel ni Mama Gassama bëggoon ngeen naa gis fan la gars yi génn si julli bi ak naka la gars yi de ki nga xam ne mooy Mariam Pouy ak ki nga xam ne mooy suñu sista booba ah, di Binta Diba ah, noonu rek la kon nag Gambian Talents nga naay seetaan subscribe leen suñu YouTube page bu leen taayi bu leen dama nu ma leen ko waxee sa politique bi sa entertainment bi foo leen na ma ñu si taatu fa ñeex boo leen na ma ma togg ko dama ne su dee cere ngeen bugg ma jox leen ko soo leen buggee ma faraayal leen yéen sama jox leen. cere cere yaa ko mat a jox yow mi am mbiram cere cere yaa ko mat a jox yow mi am mbiram cere rombal digg rombal ba rombal na ma ba yàlla jox gale gala gale gala am rawatina ñu nekk si tool yu waaw. maanaam xam ne <laughs> ñoom yonent bi ñu nit na xool seen ngi def lu bon. <laughs> ndax tout contraire dong. <laughs> nit jaaxaan na xool seen ngi def lu bon ndax one fifty dong. waaye ku yëkkati lu mat twenty thousand di la ko may si benn saal. nekk sa jonko uh-huh. def la civilisation ak manque de la valeur de l'homme uh-huh. Gambia tamit am na ñu mën a maye de uh-huh. Gambia adduna noo si dàq maye def teranga rek jigéenu Gambia ngi nii ndax nee naa leen jigéen la yàlla yan lu góor attanul wasi nag boot ak nampal lu góor mënul ak lu neex waaw waaye taxawal rek joxal gars yi sa nomba xam naa am na ñuy seetaan ñoo xam ne ah, dinañ bëgg a xam li nga ku xool def jot ma <laughs> man Pape Bongo nee naa leen ko koo def rek jot ma barki yorante bi. jeex na dëgg neexul. dëggantaan la suñu waa lu yàggu na dëgg la. waaw man kuy seetaan yaa ngi jël numéro yi. waaw. def tëj na fii. jeex na ma ne ko kontaan leen kon nag bye bye guys ah, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax merci beaucoup bye bye it's time to have food and from here ñu ngi dem fanaan di dem edit video si xanaa ne yaa ngi Karasu Properties and Investment Limited, ye ken also dale lamen karawa, 20 by 20. Jiobe je, kurangobe je. Nin sun karo bunya na la horomo kan. Iba wafila $200,000. Cash. Ika fumi mfane mortgage, ka domoni